télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wér gu yaram santé animal ngir sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. ngir nga mën a sa jaar jaar. danga ko seetaan bu dara raw. Mm. visibilité dinga am promotion dinga am. nanga wane sa ci émission jaar jaar ni nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mooy sunu télé Ladoum TV di fa am béto fii ma jaar animal fii ci Ladoum TV Ladoum TV fa am béto fii ma jaar waaw ñoo ngi ci box numéro 185 ba tey fii ci nga xam ne mooy CICES mu nekk 14e édition Saladam 2023 ñu taxaw ci box bi ñu nuyoo euh, champion bi ñu bàyyi la nga nuyoo nga présenté ñu maal bi nga xam ne moo nekk ci box asalaamaaleykum waa maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen sant euh, ñu ngi fii ci Saladam 14e édition di nuyu ñëpp nuyu sama mbokk éleveurs yëpp. ñu ngi lay fay di la kontaane macha allah di am mbégte ak contentement di la taalal suñu micro waaw ñu gis si biir sélection bi ñaari jeune mâle ñu gis euh, ñu téye benn jeune mal bi nii nga présenté ñu jeune bi bu waaw ñaari jeune mal yi boo gisee ñu indi ko parce que boo gisee bâche bi dafa am communication bu muy tekki quoi parce que jeune mal yi mooy jeune mal euh, promoteur yoo xam ne bon ëllëg sunu avenir euh, élevage ëllëg ci la nekk bon mâle bi ñu téye nii mooy Terminus Junior terminus junior boo ko déggee sa xel dem ci terminus parce que li ko waral mooy yaay ji doomu terminus la papa ji mi ngi bokk ci Saloum am di Nimzat. macha allah téléspectateur Ladoum TV waaw kooku mooy euh, terminus junior waa beneen jeune mâle bi mooy. waaw ah, beneen moom muy mâle bu doy waar ñu koy wax Talla Arafat. bi muy mâle bu jeune mâle bu terrible bu prometteur bu ñëpp am yaakaar ma tuddee ko sama copain sama xarit ta euh, muy tudd Talla. ñu koy wax Talla Arafat moom lañ ko tuddee muy sëtu Grand Rane di sëtu Lobo euh, laal ci Nations Unies aussi. Mhm. moom mi ngi toll si ñaata. moom mi ngi toll ci six mois. tey jii kii fan nga yaakaar ne war na fa mën a yóbbu seen élevage. waaw euh, non seulement wax ma sunu élevage wat mais élevage Sénégal sax mën na ko fa yóbbu ñu am ci yaakaar lool di ko ñaanal yàlla laf cat waaw. macha allah téléspectateur Ladoum TV doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy fanu gudd ak wér waaw ba tey ci biir sélection bi gis nañ fi benn femelle bu rafet bu doy nga présenté ñu femelle bi. waaw bi femelle bi euh, ku ko tudd sa xel dina dem ci terminus parce que femelle bi doomu terminus la doomu terminus sa yaay ji mi ngi bokk ci Fadam Mbodj ak doom Jémb waaye terminus daal lañ gën boo ko xoolee sa xel lay dem ci terminus. téléspectateur Ladoum TV. gis nga femelle bi nekk na femelle bi nga xamante ni si baayam yëg na podium ba tàyyi mu nekk deretam ci podium mu nekk xar mi nga xamante ni si xar bu am avenir la waaw ba tey ci biir sélection bi gisaat nañ fi tamit beneen femelle nga présenté ñu femelle boobu. waaw boobu mu ngi tudd Miss Mbaaw ku ni Mbaaw képp ku dëkk ci goxu Mbaaw ta xaru laa doon rek kii mooy sa Miss. waaw moom tamit euh, doomu terminus la ki ma ñu kon présenté ñoom ñaar ay seex lañu waaw. à téléspectateur Ladoum TV kii mooy Miss mbaaw miis Mbao du ay foo ay caaxaan parce que boo xoolee sélection bi nekk na sélection bu mucc ayib waaw ay grande femelles yu rafet macha allah ay femelles yu amee maturation ba tey ci biir box bi gis nañ fi benn tëng nag tëng bu doy waar tëng bu rafet macha allah nga présenté ñu tëng boobu. waaw tëng bi moom alors euh, mooy daj dëpp gi daj dëpp gi daal moom daal ñëpp nee nañu gongo. macha allah ñu koy ñaanal gudd fan ak euh, laf cat moom ñu koy woowee Fa Aidara di doomu héritier. macha allah téléspectateur Ladoum TV xool leen tëng bi bu baax kii nekk na tëng de plaisir kii nekk na tëng bi nga xamante ni si fu ne war na koo mën a yóbbu élevage képp kuy éleveur day rêvé genre xeetu tëng yi di daagu sa biir bergerie moom mi ngi toll si ñaata mois. moom mi ngi toll ci 7 mois et demi jàpp 8. oh téléspectateur Ladoum TV tëng bi rafet na macha allah tëng bi am na dayo am na volume nga fàttali ñu bergerie fan la nekk ak numéro téléphone bi. bergerie bi mi ngi nekk Thiaroye Guinaw Rail euh, ak euh, Mbao parce que ñaari comme euh, Pape et Lamine la ñu wax boo nee Pape et Lamine sa xel lay nekk ci waa Guinaw Rail ak waa Mbao Guinaw Rail ak Mbao daal ñoo seq te bergerie bi téléphone ñu ngi 77. 570 30 78. 536 11 20. waaw jërëjëf waay.